Nous avons des pour remettre les subventions des ASC e, des zones de l'ODCAV et de la Soukra. De nuyu le président Papsar, le président de la zone 4B de l'ODCAV mais aussi vice-président chargé du marketing et sponsoring de l'ODCAV donc il est là en tant que délégation de l'ODECAV, mais non pas en tant que président de zone. Parce qu'il est représenté par d'autres vice-présidents de sa zone. Du nouveau président Pape Kandji, chargé de mission de l'ORECAV. Donc nous sommes au nom de l'ORECAV de et non pas au nom du président de l'ORECAV de parce que le président de l'ORECAV de n'est pas une institution. L'institution, c'est l'ORECAV. Nous, on ne représente pas les présidents, mais on représente les institutions. Vous faites président de la mais il est empêché parce qu'il a fait une phase nationales. donc c'est ce ñu comme li ñu fi DAO, à pareil moment le président était empêché et on avait fait une forte délégation pour nous, représenter l'ODCAV mais parler au nom de l'ODCAV donc c'est au nom du président et de tout le monde di nuyu la presse sportive fi ñëw donc nekk ay partenaires dans le domaine sportif lépp de sport nous ñoom dañ koy couvrir Je tax monsieur le maire aussi solennellement dinaa la ñaan subvention wu déwén bi nga jàppale leen ci parce que ñoom tamit lépp luy sport à Thiès ñoom ñoo couvrir que ça soit muy nawetaan que ça soit muy championnat que ça soit muy lutte et ils le font à des moyens propres parce que la plupart ils sont euh, seen yëfi bopp mais ñuy demee te amuñu ñu leen ci jàppale te xam naa ni lii la wax inshallah, rabi comme Diego yi nga xam le nga ko sport mais particulièrement ci le bi ñu bopp di nuyu les présidents de zone Finé les présidents d'ASC e. di nuyu tous les acteurs sportifs finés de wax rek ni encore une fois de plus c'est un grand événement pour nous nawetaan parce que je me rappelle bien en 2009 bien créé les mairies d'arrondissement les subventions allouées aux ASC étaient de 50 000 francs 50 000 francs lañ doon jox ASC ci jamono madame le maire Dieng je me rappelle que ñu fi fait benn yoon ñu fi subvention de am je crois que le président Amar ko subvention de am parce que li ñu am dañ koy jënde 30 millions d'auto, auto. et d'une manière systématique le dit on donne plus de 5

année bobu sax je me rappelle bien daf am coupe du maire mais coupe du maire année boobu amuñu lu joué nañu ba final ñu ñaari jamais eu de coupe du maire c'était Lazare qui devait jouer la finale ak l'ASC Walidane final bobu musul am parce qu'on ne pouvait pas jouer une finale sans que les ASC ne perçoivent de subvention tay di nak bu ñu demee ba nga xamante monsieur le maire ñëw nga sa première année daw waxtaan ak yow sa bureau nga ne lépp lu fi fekk bu ma yokku duma ko wañi li nga fi fekkoon daaw moom nga continuer ren xam loolu nekk na nag loo xamante ni lu lay remercier la encore une fois de plus avec toute l' équipe municipale parce que tamit boo waxee te conseil municipal bi anduñu ci loolu nekk bon nag boo amee sa générosité wax ak ñoom partagé ko ak ñoom ñu ànd ci ak yow c' est l' occasion ici au nom de l'ODCAV de vous remercier, mais transmettre aussi nos vifs remerciements à tout le conseil municipal, mais aussi particulièrement au président de la jeunesse sportive, qui est un des nôtres, de qui est le président et le trésorier général de la zone 4A de l'ONECAB Nous avons Nous comme Amar Ndiaye Mbaye Amar Ndiaye Mbaye dafa nekk nit koo xamante ni nag yàlla moo ko bindee benn benn xarañte bu sew parce que comme ni may faral di wax rek nawetaan moom loo fi mën a teg ci réglement rek am na ñoo xamante ni xarañ nañu xarañ boo xamante ni tout le temps loo fi teg mun nañoo am buntu bu ñuy jaar pour contourner ko waaw moom dafa bokk ci xam-xam boobu moom ak euh, ku ñaan Babacar Gueye bu Nguuran ñoom tout le temps rek dañuy xool buntu boo teg ñu xool buntu bu ñuy jaar boo xamee ci nii mën nañu faa donc mais c'est des gens yoo xam ne vraiment dama leen côtoyé la ñu ànd ci loolu te aussi mu nekk nit ñu dëggu ci ni ñu nekk ci liggéey bi mais mention spéciale à Bécaye parce que moom it aussi dans le cadre du travail à tout moment il nous consulte di ñu laaj sunu xalaat tout le temps pour faire pour essayer d'améliorer les choses rek je crois que dafa am supporter yu ma ñëw ma président dégg francs euh, enfant j'ai une enveloppe financière d'un pour la finale mais man dama décidé daf enveloppe financière de 3 millions pour les mais comme ci zone boo c'est une zone peuple public il nous faut prendre d'autres initiatives donc 1000 francs pour beaucoup de defee lu dans un am stade bu pratiquement doublé doubler ci match yi encore dana nous permettre au moins bu ñëwee final bu mon maire vous avez 1 million 500 ma jël 1 million 250 000, jox ko ci gagné Il 750 000, 750 ko jox ko gagné ça fait une enveloppe de 2 millions pour l'équipe senior vainqueur et pour le vaincu encadré 1 million donc loolu nag dafa demander d'autres stratégies pour que nous puissions atteindre l'objectif. donc pour dire que rek nawetaan ñi ci nekk ñëpp président Pape Sarr je crois que chez le maire a doon parrain final. il a organisé la plus grande finale de l'histoire de des nawetaan de Thiès te loolu li ko aussi sa générosité son savoir-faire avec une équipe dynamique moo ko may lool am de grandes ASC autour nous avons tous de grandes ASC et comme li may waxee rek man dama nekk zone boo xam ne la zone 1A dama polarisé dama nekk une zone qui est entre trois mairies mairie nord am naa fa benn ASC mairie bi am naa fa trois ASC mairie est am naa fa six ASC moo tax ñu boole ma mairie est mais mairie ouest bii ma ne sama ASC fi la ne jaloore fi la nekk ku ne ratu leen fi la nekk et comme ñun aussi euh, ouverture on va faire quatre matchs mais ñun chaque match dañu ut parrain sama match d'ouverture entre Jaloore et Guney Redu Leen laa bëgg nga nekk parrain bi non laa bëgg nga nekk parrain bi parce que fa nga dëkk fa nga dëkkoon xaw ma fa léegi fi nga xam naa ne fa nga dëkkoon te xam naa ne ba nga fa dëkkee dëkk randu leen di feral xandaalu xandaalu tey dafa def fusion moom maani kere ñooy jaloore nga dëkk biir randu leen donc tey moom comme parrainé woo ma bokk ci ñi may parrainé sama final da may parrainé journée boobu sax sama final nag vous serez l'invité d'honneur yaa sa conseil municipal pour ñu sàggaleen ko waaw ah, ça c'est message aussi que je voulais faire de ma zone, mais aussi remercier le, au nom de l'ODECAV, Ousmane Diop, absent, a personnellement transmis de vous remercier au nom de l'ODECAV. Je ce conseil municipal pour ce que vous avez fait et ce que vous êtes contenu de faire avec la nous, que ce soit avec la Soukra, que ce soit avec les AIC, que ce soit avec les autres. pays final maillot de qualité

on a tous constaté que c'est à temps que j'ai débloqué tous ces moyens mettre à la disposition des hommes donc on a payé c'est l'occasion de témoigner devant le monde sportif présent xam ni li mais vous l'avez compris parce que comprendre ko Moi, li jeunesse le sport la santé la population pour les donc, au, au nom de l'ODECAV, donc, nous vous remercions. Euh, di wax ni amna ni inshallah allah moy mooy dàq mais ren moom dàq na fi jaar pare merci monsieur le maire merci à tout le monde. comme euh, je crois que président yi ne li mu ci wax leer na dégg nañ waxam te moom tous les jours man ak nous ñu ngi ñu ngi ñu ngi et instamment savant sax maa man ak donc pour nous faire ensemble avec l'ODCAV donc euh, on est sur la bonne voie amna na loo xamante ni du du du ñun du Soukra mais ODCAV ak Soukra on a eu toujours d'excellentes relations et Inch'Allah, on continuera à avoir ces ces ces ces relations parce que nous sommes tous des frères merci. Madame le maire Mame Fama euh, monsieur le maire bi toogoon fi muy Ndiogu jóg na monsieur le maire Makoli euh, monsieur le maire euh, Abdou Ba Njigéen bi maire a ak le conseil municipal di nuyu maire Khady ak tous les autres conseillers madame Diop ak madjay monsieur le madjay fi nek nuyu également Ami chargé du protocole du maire chargé secrétaire du maire nous nuyu aussi monsieur le chargé du protocole euh, di massaw suñu frère Abdoulaye Dion di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati ak jàmm mu chargé de la communication di nuyu également euh, le président Diawara ak monsieur Sarr sama frère maa ngi leen ziar bu baax a baax euh, di nuyu monsieur le président Babacar Gueye moom sama sama frère la on a grandi ensemble à Somfi xam nga yaa ngi wax ay facettes man xam naa si ay facettes quelques facettes mooy mooy ba ñuy nekk Somfi nekk ay xale bokkoon na si dàqu na li ñuy wax. ni ñu koy waxee sax booy dem stade bañ fay. burle bokkoon bu ñu añee ba pare mu ñëw jël si nañu kaay kaay kaay lañ dem. am nañ benn ruq boo xamante ne bu ñu fa jaaree ñun ñëpp fa lañ doon jaaree moo tax ba ngay wax faset yi sama xel ci loolu la dem. bon maa ngi koy ñaanal également parce que yow waxuma woon ni am na responsabilité yu doon nii xam naa mi ngi doon yëngu ci mbir mi. bu am na loolu fi wax aussi lu am solo mooy ba ngeen rencontré maire da leen wax ni li fi fekkoon muy lu baax. da koy améliorer je pense que loolu du ci matière sport rek la ko la ko wax parce que daje nañu bureau municipal am na sur beaucoup de yoo xam ne da ko fa fekkoon maire bi fi nekkoon def ko muy lu rafet mu ne moom loolu da koy reconduire wala sax mu yokk ko donc boo leen waxee loolu fii ñun ñu nekk bureau municipal loolu aussi dañu bett donc vraiment mi ngi si lancé boobu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla gën ko kattanal yàlla gën koo jox doole euh, ba ambition yi nga xamante ni moom la am wala moom le conseil municipal bi am pour la commune de Thiès Ouest ñu réaliser bon dama bëgg a également un mention une mention spéciale à notre frère Bekay Bekay Faye parce que maire bi commission yëpp daa am ñu ngi ko sant ñu ko jox mais dafa am adjoint maire bu nek da am ku mu ko ku la commission yëpp muy commission sport muy commission domanial adjoint maire yi ngeen gis ni fi yëpp am na ku nek ben commission boy liggéey wala ñaar mu tànnoon ñu ne ñu ne liggéey doog Bekay

dañoo bàyyi Bécaye muy déroulé vraiment te wax dëgg yàlla mu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo man pour man nag defi maire comme ni ñu ko waxee léegi parce que nawetaan képp koo xam-xam ni wax dëgg yàlla boo xoolee gars yi nga xam ne gars yi jàmbaar lañu parce que li Babacar Gueye wax léegi ne li ñu leen di subventionné boo xoolee moo mënul sax gérer ñetti regroupement nga xamante ni yoo xam ne dañuy déroulé regroupement toute une toute une année toute une saison nawetaan nga xam ne ñu ay jàmbaar lañu da ngay xool fan la ñuy seen moyen boo nekkee supporter rek nekk si koñ yi da xool di si di xool rek ñu organiser si euh, kii regroupement yi nit ñi di lekk ngay dugg di génn doo xam mais ndekete ñoom ñooy fu nekk ñoo fay dugg donc vraiment ñoom aussi dañu war a encourager gën leen kattanal man defi bi may jox maire mooy pas mu ko joxe à temps sax parce que loolu moom yaakaar naa mi ngi ci mais ñu ñaan yàlla ba déwén bu ñuy wote conseil municipal wala bu ñuy wote municipal ñu mën ko yokk subvention yi ba yàlla dimbali ñu vraiment ngeen mën cee gis seen bopp donc kàddu yooyu sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di yëkkati kàddu nuyoo te ko ci loxo kilifa yi fi daje kilifa yooyu ñu jiital ci doyen yi fi teew doyen Matar Samb di ubbi jataay bi ak doyen Babacar Lo ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax loolu moom sant bi rek xaw a doy waar Amar mi ngi laaj ndax ñu dina sant loo mais ñu koy nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci ni mu ubbee am na solo di nuyu le président Ousseynou Diawara le représentant de l'ODECAV ak euh, bokkam yu baax yi ñu ko séqal muy euh, sama nijaay le président Pape ak euh, le président Pape moom tamit santal ñu ko wax naa ni soo paree ñu dugg am na yëf yi mu de cabinet am na yu ñu yor foofu yu baax kàjj donc ñu ngi bu baax a baax a euh, ay doyen yoo xam ne aussi ñu ngi ci biir jataay bi Opa bu baax euh, ak doyen Demba Demba de Jalooy ñu lay nuyu bu baax a baax yow tamit donc suñu yaay mère Khady Fam nous ngi en tant que conseiller municipal mais aussi en tant que doyen d'âge du conseil municipal Nous ngi également les adjoints au maire commencé ko ci Amadou Dia le premier adjoint au maire chargé des questions sportives teg ci deuxième adjoint au maire adjoint au maire teg ci Ndiogou Ndiaye dafa jóg xam naa ni dafa am soxla moo tax mu déplacer. Nous koy nuyu bu baax baax di nuyu

Ah <laughs> donc ñu ngi koy nuyu bu baax baax n'est-ce pas di nuyu Bekay euh, le président de la commission sportive donc qui abat un travail de titan à la tête de cette commission donc ñu ngi koy nuyu bu baax remercier diko encourager donc commission yi lo rek lañuy xaar ci ñoom Moy commission yëpp bu doxé rek maire bi dox donc ñu koy remercier diko encourager ci bi nous tous les conseils madame Fatou donc ngi le conseil municipal le cabinet du maire Ami Faye chef de cabinet mi ngi fi chargé de la communication ak Amar chargé du protocole ngi également nos amis d'enfance fi ñu leen leen ak je pense que damay wax toujours ni loolu moo ëpp solo li ñu nekk parce que li ñu nekk passage rek dañ ciy jaar mu war a jeex mu nekk mandat mais ñi nga àndal démb ba ak démb googu ak googu dafa jar a sàmm bis bu nekk donc Mour Samb mais doon wax Lamine n' est ce pas di Gora Amar donc on en fait voilà tout ensemble donc en tant que des amis d'enfance euh, au niveau de nespa. n' est ce pas Papis mi nga xam ni mooy bras droit wu Pape Sarr n' est ce pas

n'est-ce pas euh, di nekk ci presse sportive bi ñu koy nuyu bu baax a baax moom tamit mi ngi def lu am solo ci wàllu sport maanaam sargal sargal ñi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement sportif doon yëngu démb ak bërki démb loolu c'est très important maanaam devoir de mémoire dafa am solo nit ñi di bañ a fàtte ñi nga xam ni même bu dee cinq minutes bégal nañ dans la vie parce que sport loolu la aussi maanaam day traîner passion n'est-ce pas nit dugg terrain am nu mu jëfee loolu marqué na diwu Sadio Mané n'est-ce pas diggante boobu nit xam na li ximmi am na koo xam moom daa jóg dem doxantu ji sama waaj borom li leen moom daa doxantu ji xoolul xoolul penalty bi ba tey <laughs> ba tey relative bi la xoolal donc yu mel noonu c'est emblématique nit du ko fàtte donc loolu ngay def ñu ngi la ci encouragé yàlla ko yàlla gën a yaatal yàlla gën la ci may la

reboisement yi ñu ngi fi set setal yi ci quartier yi ñu ngi fi désherbage yi léegi bientôt l'ouverture des classes yooyu yëpp c'est des actions citoyennes yoo xam ne keroog sax bi may dalal daaw je pense ñoom Diawara maa ngi leen di tooñ n'est-ce pas ci en termes de réflexion parce que ñun yàlla dafa def ci loolu la ñuy yëngatu maanaam nous sommes des chercheurs donc loolu mooy suñu voilà suñu métier jàngalekat ak gëstu ma ni ko ASC yi est-ce que sax see bi mënuñu ko won soppi par citoyenneté manam association sportive et culturelle lañuy wax ma ni ko est-ce que mënuñu ko def association sportive et citoyenne nga xam ni lépp da ci mën dugg euh action bu ngeen mën def dans le cadre en dehors du sport daf ci da koy mën a yóbbaale loolu réflexion la won rek ak voilà ak benn approche critique n'est-ce pas parfois parfois ñun yooyu dañuy yooyu moo ñuy dundal quoi donc pour vous dire que daal citoyenneté bi ak civisme bi bëgg nañ ASC yi gën ci taxaw gën ci jàpp parce que ni ko Lamine Mod Mod Lamine waxee léegi bi ma demee keroog waali daal wax naa leen ko ma ni leen énergie bi nekk ci mouvement nawetaan énergie boobu mën na gën a amal njariñu société bi et loolu moo am parce que énergie bi c'est inestimable kenn xamul fu mu yem parce que ay ndaw ñoo ko ñoo ko séq te ndaw moom la yàlla jox kattan pour mu doxal jamono n'est-ce pas liy doxal jamono ci ci ci moom lay jógee n'est-ce donc bu ko defee loolu yéen ñi nga xam ne yéen a jiitu ci mouvement bi yàlla def tey ngeen nekk ci ay doyen n'est-ce pas am expérience fu ne ngeen jaar fa en terme de réflexion loolu mën ngeen ci gën a xalaat bu ngeen ko booleek ñun li ñuy doxal ci wàllu programme je pense mën na gën a amal njëriñ société bi te loolu rek la ñuy xaar n'est-ce pas bu ko defee ndaw ñi dinañ leen mën a euh, jox cadre ak orientation boo xam ni dinañ gën a mën a am euh, espoir ci seen dëkk surtout ndaw ñi ndaw ñi dañu soxla am espoir ci Sénégal parce que li ñuy def di mbëkk gaal yi di dem di risquer seen vie pour teg ci feneen je pense que bu ñu leen gën a encadré ci cadre yu mel nii ci mouvement nawetaan loolu dina leen gën a mën a jox espoir pour ñu des ci biir réew ñu xam ne y a des perspectives ici te loolu vraiment je pense que loolu ñun ñëpp ñoo ci war a xalaat n'est-ce pas politique yi kese doyuñu ci politique pour ñuy jël décision mais ku ne xam na ni doxal société doxal politique yi ci kanam mais ñoom kese buñ ko bàyyee duñ def mënul donc ku ci wa nga ciy ñun ñëpp ñu Sénégal mën avancer ñun ñëpp suñu objectif loolu mooy suñu parce que lii xew ci Sénégal ci ndaw en termes de déperdition scolaire, en termes de désespoir, n'est-ce pas, de démotivation loolu neexul kenn parce que bu dul sa rak wala sa voilà wala etc. et cetera ñoom ñëpp suñuy doom lañ suñuy jarbaat lañ mu jar nag ñu encadré leen parce que ndaw l'ol mak l'ol la ñuy xaar ci moom am générosité encadré ndaw l'ol la xaar ci donc l'ol nag euh, je pense que Manki ngi ciy woo ñëpp doyen Matar li ci wax ci am ñoom ñu ni je pense que ñoom ñoo jiitu ci àdduna olof nag day wax ci lay wax fi ngay donc ñu bàyyi xel recommandation ak orientation dafa am n'est-ce pas donc loolu benn message la woon boo xam lancer à l'endroit du mouvement nawetaan nga xam ni polariser ci jeune amul mouvement espoir bi ñu war a ndaw ñi ci dëkk bi Sénégal ñu Sénégal c'est possible de rester dans ce pays et de devenir quelqu'un et de faire quelque chose dans sa vie. Et c'est très important. Bon, Benen bi aussi moi, euh, wax nañ ko léegi ci wàllu défi yi nga xam ni mooy xaar mouvement navétane surtout ci wàllu violence. Sëñ Cheikh laay dégg muy wax ni ci benn citation celui qui gagne toujours c'est un sorcier mais celui qui gagne souvent c'est un champion. nit mënoo chaque jour nga am ndam mënul

loolu moo koy jàngal donc les vertus de l'échec c'est important ñun ñu revisiter ko Abraham Lincoln ñun ñëpp xam nañu histoire président États-Unis la avant muy nekk président États-Unis bu ma juumul jàngalekat yaa ngi fi je pense il s'est présenté xaw ma cinq fois xaw avant muy nekk président des États-Unis te dit ci biir présentation cinq fois pratiquement perte na fi tous les membres de sa famille jabaram doomam et donc loolu nit bu ci jaaree walla ay nit jaar ci euh, dafa ñu war a jàngal te l'histoire se répète n'est-ce pas booy jàng alxuraan yàlla li muy nettali souvent damay dégg sëñ Moustapha bi nga xam ni mooy suñu président ak suñu kilifa ni bu fekkee da ngay jàng alxuraan naan ba yàlla di def nàngam nee na dégg woo alxuraan parce que yàlla yow lay waxal ci temps présent bi سلو تدل نوح ولا متدل عود ولا متدل فرعون أمنا فرعون سجمنا أمنا هود سجمنا أمنا نوح سجمنا أمنا يوسف سجمنا إفور بوب نغورا دف بخم كد مو ريبريزانتي كاسكت يوي إفور بوب لا القرآن دي خاتي يو وطاق تجور مو انتربولي سخل كي رفلكشن فرعون أمنا كو انكارنا كي كو كارلا لومو جوي نانغا تي ورا تخيوا لانغا تي ورا yusuf am na ku ko incarné sa jamono et cetera yonent bi parlons parlons de lui maa ngi wax léegi les vertus de l'échec xam nga ni bu yàlla doon joxe ndam wala boog bu yàlla doon jox kenn mu bañ a ñàkk bi lay doon te perte na ay xares dem na xare ñu ñu gañe leen dóor ko ba mu daanu il a perdu il a eu des revers dans sa vie donc ay jullit lañ yooyu ay delluwaay la yoo xam buñ ci delloo yi ñuy jongante muy compétition yi dinañ ko jël avec philosophie ba am esprit de dépassement ba après tout li ñuy dajale ci le temps d'un soir war a mën a jur yoo xam ay amitié la yoo xam dans la vie day continuer et c'est important donc quatre-vingt-dix minutes bu naree yàq àndandoo quatre-vingt-dix ans donc war nañu xoolaat quatre-vingt-dix minutes yooyu au contraire daf ko war a gën a raffermir war ko gën a suuxat n'est-ce pas lolou lay xaar ci matchu c'est way jox na ma match bu doy waar jaloore ak ak Bouneuil len je pense que ñom bi mom duñ ko duñ ni match bi do am quoi il faut que match bi am mais mais quatre minutes yu jur vraiment raffermir des relations parce que dama xam ko ci boobu dund ko xam ko bu baax a baax baax n'est-ce pas et je pense que sax bu ma euh, bu ma dévoiler un secret avant may nekk maire Amar du ma bàyyi ma wax lu noonu comme koñ boobu laa dëkk te yàlla du def hasard fi ma dëkkoon c'est la frontière entre xaddaal bi ma xam ak Goudiran la ma ni ko euh, te comme randu leen laa gënoon a jege mais xadaalu laa doon supporté sama démarche yëpp moo doon fede def ASC yi nekk benn dox naa ci wax ci gis ay kilifa

wala esprit boole boobu ak booloo boobu ñun loolu moo ñu war loolu la ñuy doxee te loolu bëgg aussi ci mouvement navétane n'est-ce pas ñu dem ba ay tuddante ay doom am ci ay sëy am ci et cetera et cetera loolu moo rafet loolu moo baax donc loolu la ñuy woo ñëpp ñu xam ni mouvement navétane c'est une famille famille boobu nag dañ ko war toujours di consolider en tout cas ñun de notre côté luñ ci mën en terme jàppale leen accompagner leen dañ koy def

maintenant zone yi incha allah ñun ñoom déwén ak euh, ODCAV ak euh, dugal na ci léegi presse sportive pourquoi pas il faut peut-être acteurs yëpp gis ci seen bopp yooyu yëpp lu ñu war a mën a jël en compte la dugal ko ci n'est-ce pas donc incha allah nii ñu defee ren ak ASC yi déwén également bëgg nañu tegaat beneen jéego pour être conforme ak li ñu waxoon ak yéen li leen liñ fi fekk daal yokk lañ ci bëgg mais pas mu wàññi te olof day wax ku yokkul yaa wàññi donc loolu nag la ñu bëgg incha allah ak yeneen yi muy taxawaay yi nga xam ni parfois damay wax sax enveloppe yi baax na lool mais nit nit ki xewle gestu gis la loolu amul lu ko mën a fay n'est-ce pas def nañ ko taaw def nañ ci ay effort donc dem nañ fii ba Dakar à plusieurs reprises seetaani Jaloore seetaani euh, si Medina Fall avenir Medina Fall mooy cadette bi cadette bi bi jël bi muy jël coupe bi on était là-bas donc loolu lañ bëgg a continuer ak yéen n'est-ce pas Bécaye mi yenn saa yi aussi euh, même bu dul nawetaan ci championnat yi club yi mu ñu ah tey de gars yi bëgg nañ ñu ñëw sport bu ko defee bu jot ci maye ñu def benn délégation dem fa donc euh, xam leen ni daal suñu présence saa bu ñu ko mënee bu ngeen xewlee dinañ ñëw fekke ko parce que jàpp nañ ni loolu moo ëpp solo enveloppe yi ñu leen di jox moo ëpp solo fuuf sax enveloppe ñu leen di jox n'est-ce pas donc loolu la ñu bëgg a continuer ak yéen mu nekk collaboration boo xam ni fructueuse lay doon n'est-ce pas ku nekk gis ci boppam n'est-ce pas peut-être fi ñuy terminer mooy au-delà de jàppale bi ak teewaay bi dans le domaine des infrastructures foofu aussi ñu ci def ay efforts dafa lañ gën a bëgg sax liggéey xëy na am na luñ ci tàmbali donc terrain basket bi nekk wàll daal ñu koy defar bientôt lii mu terminer euh, avec Ousmane Loï, c'est un ancien international, c'est un ancien du mouvement l'État également. Nous avons un terrain synthétique au niveau d'HLM de Dakar. N'est-ce pas Lorsque nous avons fait, qui un peu partout, qui terrain dans la commune de Thiès-Ouest. Trouver des partenaires. Trouver des partenaires pour réaliser des terrains de qualité. Parce que le football aussi doit évoluer. L'évolution aussi, à top sur le plan qualitatif. xale yi gën a mën a def li ñuy def ñu gën ko mën a maîtriser ba mu gën leen a indil njariñ seen bopp ak seen waajur ak seen njaboot ak société bi yëpp donc loolu daal xëy na moo nekk kàddu yi euh, yi nga xam ni bëggoon nañ ko ci yokk donc di remercier waat ñëpp vraiment di rafetlu teewaay bi di jéggalu surtout retard bi euh, dañu xëy euh, yàlla xam ne ni Amar 10 heures laa ko woo ma ni ko est yaa ngi mairie <coughs> mu ni ma ñëwaguma parce que boobu dama bëggoon bala may génn toog nañ dix heures bi ma ñëw def li may def fii ba pare doog a dem fi ma jugee mu ni ma gaa yi ñëwaguñu ma ne kon damay dem benn cérémonie suñu commencé rek def ma si ma dem ci cérémonie bi xam nga cérémonie du tout le temps ngay mën a téléphone ba may ba may gis kii yam appel bi dama ko gis rek tëb bàyyi fa li ma doon def doo ko ñëw loolu moo waral retard bi maa ngi ciy jégalu bu baax a baax a baax surtout doyen Matar xam nga moom pédagogue la gis nga ni mu ko jàngalee. Mm. <laughs> <laughs> nee na nee na 10 heures ba tey maa ngi loolu wax la cax la donc ñu ngi jégalu bu baax a baax vraiment toogaay bi donc di leen vraiment souhaiter vraiment une bonne année de compétition sportive dans la paix n'est-ce pas dans la convivialité n'est-ce pas dans la sportivité et dans le fair play surtout ça n'est-ce pas donc euh, finale yi aussi on sera là inchallah on sera là donc ni ngeen ko waxee